tur bi nan la ak fooy wootee parcelle ah parce que daa la wala wala kooku waa cité la yow waa cité nga yow non waay <laughs> ah. ah macha allah aca ñu daal la lay bàyyi wax li nga xam moo di analyse si combat man ne ku ñaan sa mbër mene la amin man waaw jàpp mbar nag du ma tax. dëggantaan bi la boobu. waaw waaw. bi suba la suba. suba la. waaw. mais yow yaa ngi supporté Modou Lo te xamoo kañ lay bëree yow tamit. ah. ah. jàkkaarloo bi jàkkaarloo bi laa xamutoon. dëggantaan léegi suba la léegi yow lan ngay conseiller sa mbër puisque Modou mooy sa mbër. waaw Modou li ngay wax daal yëpp liggéey mhm. la rek. waa làmb ñu bëri dañ koy soxla. Modou. dafa def benn mu def ko dix. Mhm. ñu jàpp benn ko daan doon na ko tuuti mhm. lañ koy ñaanal. dëgg la. ñaanal anaconda rek maa ngi nii vingt deux ñaanal may ko tax. amiin yaa mu ngi mu entraîné mu bàyyi booy mooy ànd ak booy jàpp rek ngeen ko seen temps. waaw ñu tegal bar gis mhm. daa ma di mën nga xeex mën na bëree mais doole da bu doy mhm. bañ a ànd ak mhm. kon daa muy teel tëdd daal waaw da teel tëdd ah loolu kay yow sa conseil la allah tënal parce waa parcelle lañ ko yaakaar dëgg awel deux di ko ñaanal ndam di leen ñaanal jàpp dëgg la Merci beaucoup à toi aussi.